Serigne Djili moom Cheikh Ahmadou Mbacke Doré la. man nag man personnellement personnellement ba ñu ko seedal Sëriñ Tuubaa ñu ko seedal kese donc dëgg yàlla la def mu nekk ñoom lool mu naqar mu nekk naqaru xol naqaru nekkitu xol waaye man sama jëm bopp dama ko ñeewal te dama koy ñaanal yàlla sama borom dimbali parce que pourquoi parce que boo xoolee jëf bu ci biir doo xam ban importance wala ban intérêt loolu war a mën a am pour nit ñi jëf lu mel noonu nit ñi dana soxla seen xel gis nga li am na ñuy xeet ci suñu biir yoo xam ne doomu aadama boo bay sama ko jëmee ci moromu doomu aadama xanaa xam nga ne doomu aadama xam naa ne ci ni ñuy tuddee sëriñu tariya ñu xattal nguur toog ba mu def loolu bu tey boo ko bëggoon laaj ko li nga def doo ko day dar gémmiñam day yuuxu day day laaj na li mu def nan la parce que def na jëf ji ba noppi consciemment muy soog a jël soit ci moom yàlla ko sama borom jéggal yàlla ko sama borom jéggal ay mbokkam fu ñu ko mere nañ ko soutenir nañ ko jàppale rek psychologiquement yor ko soxna ay at wala ay weer nekkal moom boo suñu borom may la pour tànn nga wëlbati ko jëf-jëf ju mel nii. kon ñu def suñu xel aw ñu sellal ko ba ñu jël toolam à cent pour cent teg ko nañu xool kooku noonu li sikk ci moom ñu jàppale ko ba loolee sax borom dimbali ko ci defal ko ci kaw loolu mooy yoon. man dama ko ñeewoon de bii daal wala daal daal dama ko ñeewoon gis nga fi mu ne nii buñ ko bàyyi woon tëjuñu ko bu ko justice bàyyi woon tëju ko bu génnee ci mbedd mi moom nekkatul nit. addunaam jeex na addunaam yàqu na fi sénégalais moo doon jëm moo mel noo xamante ne bi melokaan bu doy waar la sénégalais la la muy def ci safaan bëggul kenn xam waaye lu muy def ci safaan bu ko xamee foo toll mu wax la ko wala mu dina ko xoolee wala mu dina ko kobasante wala mu dina ko ñëwee boo ko dégg wala kon yooyu ay message yooyu lancé mais daal ñu xam ne violence bi bari na violence physique bi jéggi na day violence verbale yi moom waxaale wu moom ay waa ji nañu jëli soit suñu xel tuuti gis nga ak ñi ci mën a xew dafa bëri gis nga nit ki moment bi nga taxaw bi nga sa kàttan am say pexe suñ borom may la zaay nga jàpp ne taxaw ba tax nga war a mën a song ku la neex walaay bis ni ñëw nga toog ci baax looy def dañ la ko def bis boobu bis bu war a bàyyi xel am na koo xamante ni bii ak dundam mënatu cee am njariñ dërëm bu mu fortaat dina ko yamale ci boppam du ko tax du tax du tax mukk ci àddina la ko naqari dañ ci moom te moom de doon dong koo yóbbu nit wax ay waxam nga jël wëlbati ko def ca commentaire bu la neex ba àgg ci tudd ay way juróom teg lu la neex wala nga tudd ko moom ci jëmmi boppam teg ca lu la neex ay wax te ñu gën a doole góorgóorlu bu baax man li ma leen di wax lenn rek mooy bu ñu bëggee tàggoo suñu jafe-jafe yii ñu nekk te ñun ñëpp am jafe-jafe ñii am na jafe-jafe seen i wàññi ñii am na jafe-jafe àdduna yu metti ndax boobu léegi ñu ngi wut liggéey fu ne ñu ñi ci des ñi ngi tawat tawat yoo xam ne kenn xamul du leen ko teg te tawat la yoo xamante ne bii du wér amul médicament amul dara yooyu yëpp nag il faut ñu wax solution te solution bi lenn kese mooy gis nga suñu borom buñ ko fàttee rek dafa maandu buñ ko fàttee rek du jàngi mu daf ñuy fàtte sax waaye daf ñuy bàyyi suñu bopp ndax ak maandoo léegi bi mu jëm